asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax yéen ñuy suivre ñëpp seen seen sama xalaat TV ñu lay fàttali ñu ngi daal professeur Ousmane Ndiaye borom Boga Bio nekk tradi praticien maanaam kuy faj fajam di sukkandiku ci ay ay gàncax yoo xam ne sax fii ci réew mi. léegi nag euh, ñu ngi woon ci cancer professeur vidéo bi passé leeraloon nga ñëw cancer nu muy deme ak tam wax ñu nii maanaam exactement li koy joxe moom science génneeku ko yëpp ay suspicion rek la am quoi voilà mm-hmm. léegi nag ñu bëggoon xam comme loolu yëpp daal daa fulu ba léegi. te cancer di feebar buy rey léegi ñun su dee bugguñu am cancer ñun nan la ñu war a def ba duñ ko am parce que loolu moo gën si courant. bon sëñ Pape maa ngi lay di la ziara di nuyu mbokk internet yëpp xam naa ni nga ko waxee ci numéro yi sax ci woote yi. Mhm. naa du yàgg maa ngi xalaat lu ñuy changer stratégie de travail parce que tamit euh, mhm. remarqué naa. Mhm. surtout comme ni nga wax ne weer yi nit ñi dañ lay woo woo yoo xamante ni. franchement daal il faut que ñu xam changer système bi daal. xam naa ne. ah parce que yenn saa yi. d' accord am na yoo xam dañuy jël sa temps bi yëpp te. Mhm. mooy loolu après finalement mooy loolu daal. Mhm. donc loolu aussi dinañ ci xool na nu ñuy. Mhm. beneen méthode de ko def par téléphone quoi. téléphone ci ngoon gi. loolu la jeex foofu nag nit ki bu ñëwee ba toog. mën li ngeen bëgg wax yëpp mën ngeen ko mais bëgg na jël téléphone téye la une heure de temps di la raconté feebar bi ba mu ko dalee fi mu jaar yëpp ci faju loolu day compliqué si wax daan wax dëgg ca rek lay ca loolu moom moo <laughs> koo dëkkee quoi du yàgg sax dinañ changé système parce que tamit euh, du mën a continuer waaw loolu day compliqué waa pap cancer moom day nekk feebar bu xaw a doy waar li hmm. njëkk daal mooy l' alimentation hmm. euh, bi ci njëkk ci prévention yi mooy alimentation lekk lekk gu baax gu sell parce ñun moom surtout li ñuy yóbbee lépp mooy alimentation bu baaxul toujours ñu wax ko mooy suñu bouillon yeeg yu kenn xamul yi nga xamante dañ koy lekk di utiliser mm-hmm. baaxul beneen bi mooy wax naa ko ci dafa am ñaari produit yoo xam ne baaxul ci cancer muy suukar ak meew mm-hmm. toujours moo ko euh, ñi am cancer dañ euh, koy éviter ñi amul cancer sax suukar bu bari baaxul su ñoom asamaraa ñu koy am parce que sucre mooy li nga xam ne day day day dundal les cellules cancéreuses maanaam cellule ki amee cancer. suukar day matière boo xam ne ak meew dañuy surtout suukar bi dañuy dundal cancer bi maanaam dañ ñoo koy dundal. loolu nag fii ak ñi ngi koy dundal. Mhm. faj bi du du du gaaw. dëgg du dem léegi nag parce que dañ ko war a éliminer. te boo xoolee ba demee hôpital chimiothérapie yi ñuy def ak yu demee noonu. mooy mhm. éviter soit ñaari procédure moo am mooy ñu bloquer les cellules cancéreuses ba nga mhm. xamante ni ni ñuy màggee du gaaw. Mhm. ou bien ñu éliminer ko ray ko. ba cellules cancéreuses yi dee. loolu rek mooy chimiothérapie ak radiothérapie yu demee noonu. te loolu nag fekk nit ki mu ngi koy def di utiliser sucre du am njariñ parce que sucre bi day yokk. cellule eh, cellule cellule kon ki nga cancer éviter les sucres éviter lu ak yu utiliser. d'accord surtout le lait de vache mais on surtout surtout aussi les boissons gazeuses dañ utiliser les charcuteries les transformé la. Mhm. yu éviter tamit ci cancer ndox mu aussi surtout le matin. bu buñ ko mënee ndax mu bari moom tout temps war nañ koy man di naan mhm. suba muy ngoon mais nag matinal bi moo ci ëpp solo di naan ndox mu bari surtout mhm. le matin mhm. dina leen euh, may loolu euh, euh, ñi nga xamante ni ñi ngi xay na am nañ cancer ba ñu ngi def ñu ngi def radiothérapie wala ñuy def chimio li may wax nag waxoon naa ko ci vidéo yi defe naa ne benn sama benn patient moom ko témoignage ñi nga xam ñi ngi def chimio buñ ko mënee bu ñu def chimio nañu woor bu ñu nee suba la ñuy def chimio ak jour bi ñuy def chimio ak ba ci suba la ñetti fan yooyu loolu dina leen dimbali parce que chimio dafa xaw a metti mm-hmm. mais bu ñuy woor noonu day day loolu xam naa ne xëy na ci science dina ñëwaat dina leen dimbali ba nga xamante ni cellules yooyu euh, ray ko bi du ja du jafe mm-hmm. donc loolu moom ay témoignage ci ay patients ñoo ko defal mm-hmm. Euh, bu ñëwee ci fruits yi xam dinañ ci ñëwaat tuuti ci li aussi ñi nga xam ne def chimio. Mhm. Euh, waxoon nañ ko fi bu ñu mënee di utiliser solom. solom bu dee ngi Sénégal gi waaw. di ko jëy lu bari di ko lu bari solom bi di ko xolli lu baax. Mhm. parce que solom bi des def day day day def indi globule blanc. te globule blanc yooyu da leen di mais bu fekkee dañoo amee cancer parfois euh, globule blanc yooyu parfois da leen di manqué surtout bu ñuy def chimio ak léegi solom boobu moom dafa gaaw ci pour def may leen globule blanc mhm. donc globule blanc yooyu dana leen dimbali donc ñuy lekk aussi ay légumes ak mhm. ay fruits mhm. tamit baax na si ñoom bu ñu koy consommer lu bari leen légumes ak fruits yi nga xamante ni légumes yu surtout crudité bi nga xamante ni ñorul moom it baax na si ñoom dina leen dimbali bu baax donc yooyu mooy pré kii euh, Pape. Mhm. prévention yi nga xamante ni. Mhm. ki amul cancer wala même ki ko am. Mhm. mën na koy mën na koy faral di def lu bëree bëri quoi. d'accord loolu yaakaar naa leer na à bon entendeur. <laughs> <laughs> waaw macha allah. Mm. te lu jar nag bàyyi xel la parce que cancer dafa nekk feer boo xam ni. Euh, dafa mën a yóbbu yóbbu xel yóbbu fit. yóbbu fit waaw voilà moo tax baaxul nañ ko moytu. Mm. léegi nag professeur ñi nga xamante nag par exemple tey te nii nii nii moom wax nañ leen dañoo am cancer. Mm-hmm. ñi def seen ndax am na loo leen mën a conseil loo xam ni peut dina leen euh, dina wéral seen cancer. waaw euh, ñi nga xam ne dañoo amee cancer. Mm-hmm. su fekkee mën nañ ko nañuy wut ay jus naturel. Mm-hmm. ay jus naturel. Mm-hmm. surtout jus de betterave. betterave betterave buñ ko amee def ko jus. di ko naan matin soir wala matin midi soir. Euh, baax na ci ñoom daf koy daf koy rey. le mel ni jus de raisin aussi. Mhm. bu ñu ko amee jus bi wala bu ñu jus bi di le lekk lu bari raisin bi. baax na waaw. surtout yooyu gis naa ko ci ay document jinjeer euh, tamit diko def jus yi baax na ci diko nan lu bari. Mhm. Euh, lu mel ni citron. citron aussi. baax na mhm. ci jus de citron. limon limon. Euh, lu mel ni feuille de corossol. aussi bon nit ñang ngi koy wax mais c'est pas prouvé scientifiquement moom. Euh, parce que man damay am malade yoo xam ne dañ naan la jël nañ ci euh, kii ba sonn mais amuñu résultat. Mmh, mmh, mmh. mais nag ba baax na ci. am na benn garab aussi boo demee fu mel ne Inde moom lañ koy faje mais toujours duñ ko conseillé kenn muy poften bi ñu doon wax. poften poften Inde ñoom dañ koy faje cancer mais tamit problème bi mooy li ñu la waxoon ci poften. produit la garab la yoo xam ne dafa. toxique toxique. moo tax duñ koy éviter duñ ko recommander ñu bari. donc ku xamul luñ koy utiliser rek bu demaatee tàppee xoolaat. Paften. waaw defoon nañ ci vidéo. Mhm. dañ ci mën a comprendre lu bëree bëri quoi. Mhm. bon artémisia bi. Mhm. muy artémisia annua bi. moom it euh, wax nañ ni baax na ci ñi amee cancer. donc yiiraal moom mun nañ koo baaxee ñi nga xam ne dañoo amee cancer. d' accord yow yaakaar naa kon leer na. kon bu fekkee am na loo xam ne laajuma la ko ci cancer bi te bëggoon nga ko see yokku. nga yokk si ñu ñu tàggoo ba vidéo bi ñëw incha allah. ci plante de la semaine. waaw cancer daal Pape mi ngi noonu feebar la boo xam ni moom euh, feebar bu xaree faj la wala ñu nga ni daanaka faj bi sax demeewul noonu. Mm-hmm. donc bu ko defee ku mu dal moom da jaaxle say mbokk day jaaxle. Mm-hmm. après loo amoon di nga ko ci def. Mm-hmm. waaw ñu nag ñu ngi ko doon faj mais comme ni ma la doon yara yàgg a waxee rek. faj bi ñu koy faj. du ñu assuré kenn nit dañ koy faj ba mu wér. maanaam du ñu assuré nit ki ni. dañ lay faj nga wér. parce que faj boobu ñaan la alxuraan te yàlla dañuy ñaan. Mm-hmm. li may faral wax nag yàlla nag boo koy ñaan mën na nangu ko mën na bañ a nangu. Mm-hmm. na day nangu par la force. <laughs> waaw <laughs> waaw nag ñaan bi ñaan bi nag léegi yombatul wax dëgg yàlla nag. Mm-hmm. mais ñu ngi ciy ñaan daal. yàlla tamit mu ngi ci suturaal. waaw ku wóolu daal di bokk ñaan yàlla ku wóolu wul it ñu xam ni. waaw noonu la waaw. dafa loolu daal lañ ci amoon lu ñuy yokk waaw. leer na naa ñu. <laughs> jërëjëf.